ñuy nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter le président Gris Bordeaux ak euh, ténor yi nga xam ne ñi ngi toog tey am na ñu am na ñu mbégte am nañu cant jëm ci yéen seen rakk yi toog ci ginnaaw tey pour wax leen champion làmb jëpp ak képp koo xam ne da nga diriger écurie yaa ngi toog nii ci ginnaaw buñ doon lim ñu jeexal ñëpp a ngi fi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mais président Gris Bordeaux gàcce nga la am bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax man du ma ne nit yàllaa ngi lay nuyu te gisuma ko nit la koo xam ni ku ëmbul la comme ni ko ni ñu ko waxee woon bis bis yàlla def na am na tolof tolof maag Balla Gaye mii dem fa ñuy waxtaan ñu wax loolu nit ku am ouverture d'esprit la ku mën a déglu la ku mën a euh, euh, euh, ñafe pour ñi mu àndal la mais di félicité l'ancien bureau qui était Balla Diouf mu ngi nii toog secrétaire général ngeen tàj ko bu baax ndax lii ngeen lijjanti ba di ko def moom place am la doon joxe ñu fay réunion yi donc Balla merci beaucoup encore une fois man nag euh, le B52 suñu mag aussi depuis l'association avant ñun ñuy ñëw sax mi ngi ci suñu mag la suñu frère la te sa taxawaay aussi dañu bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax a baax di wax aussi le roi des arènes Modou Lo dama bëgg ngeen xam ni démb vidéom audio yi ma jox yi mu doon def yëpp mi ngi ci groupe bi mi ngi ànd ak gars yi ak fukki loxo bu Balla Gaye teewee mel na ni teew na démb wax na jox na vidéom ñi nekk ci groupe bi ñëpp dégg nañ ko joxe na ay audio ñëpp dégg ko donc dama bëgg ngeen xam ni décision bi président bi di jël moom ci la bokk mais man damay xolli góom bi man damay wax ni président ñun yow la ñuy waxal ñun on n'a pas un Youssou Ndour pour aider les jeunes. Mais on a un Balagay, on a un Bombardier, on a un Gribordo, on a un Mourlo. Et aussi, on ne commande pas, mais c'est que nous aussi. Notre corps, nous, culture, gisuñu dañ avons dëgg gisuñu ñu dajale lu ñu dajale ñun ak suñuy dem ak seen yu Dakar jox ko état bi bu ñu demee ba subventionné ñëpp subventionné dafa mel ni xeebeel dafa am nañ ko waxte dee man man maak président bi ñoo ànd dañ ko campagnal ñun ñu toog fi ñëpp dañ ko campagnal ñëpp a ko campagnal li ñu fournir ci effort ak ci doole ak ci kàddu ak ñëw di prestation artistes yu bari yu ñu jox ay moyens defuñu ko donc président li la Balla Gaye wax dëgg la ñun dañu ànd ak yow mais bëgguñu rus man dama xaw am kersa sama gars yi ma àndal nii donc président gestul nga jàppale milieu lamb jàppale jeunes yi ñun ñooy corps bi ëpp ñu dem ci gaal yi président président ñii ay gor lañ ñii dëkkuñu Almadi dëkkuñu Ouest Foire dëkkuñu fenn ci banlieue bi lañ dëkk ñuy fëgg seen kër di leen yee ci seen néeg monsieur le président de la république bu ñu au conseil au conseil HCCT foofu dem yaa ngi fekk nawetaan yaa ngi fekk euh, footballeur yaa ngi fekk basketteur mais chaque fois dañuy léser président xeexuñu xulowuñu mais nag adressé nañ la interpellé nañ la yow yaay suñu président te dañu bëgg nga dimbali làmb ubbi làmb subventionné xale yi jàppale leen projet yi nga taxawal yëpp nga jàppale leen ñu ànd am dara parce que boo itam bëgg nañ am dara allahumma salli ala sayyidina muhammad